bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi Pape Moussa Sow di juriste journaliste ci wal Walfadjri waaye nag ci plateau yu bari ñu koy invité muy addu ci wàllum droit waaye xam-xamam màcc lool lool lool ci wàllum droit waaye mu tëddee njaaxaanaay saa su nekk buy addu da ngay jàpp ci Pastef la bokk waaye nag dëgg rek lay topp dëgg googu nag moom lañu indil ci Ousmane Sonko mi nga xamante ne ña ngi koy toroxal di ko bundu xataal ak képp koo xam ne farandoom nga wala nga bokk ci parti bii ñuy wax Pastef Pastef bo Pastef boobee nag ñu ne dissoudre nañ ko waaye nag Pastef jamono ci dafa mel ni moo lëmbee réew mi ci wàllum parrainage mbedd yi foo romb rek yaa ngi gis waa pastif di parrainer lu am jom ànd may koog Maimouna Bousso ak képp koo xamante ne maanaam bokk nga ci cadre yi nga xamante ne ñooy waa Pastef Birame Souleye El Malick Abbas Fall Guy Marius ñoom ñëpp demu ñu des Pape Moussa Sow nag ma ngay wax beral gi nga xam beral nañ ko waa benn Bokk Yàqal Sénégal waa APR lu leen neex ñu wax lu leen neex ñu def te du mujj fenn parti bi di wax Pastef nag Ousmane Sonko bu fekkoon dafa toog këram sax demul fenn wala sax toog di julli ba deux mille vingt quatre du tey dinañ ko jiiñ ne li nga julli dafa bari lool. kàddu yooyu nag doomu ndeyam boobee du ma tudd turam di ko doon woote di ko bàkku moo ko waxoon ci ay jamono mbokk yi ñu teewlu. kàdduy Pape Moussa Sow juriste bu mag boobee dellusiwaat faram fàcce li si des fii ci seen chaîne préférée seen Njëriñ TV. li nga xamante ne ñoom euh, moom lañ parce que il essaie de nous faire comprendre que ni Ousmane Sonko lépp moom moo ko teg boppam ay ay ay personnes privées la joteel mais day fàtte ne personne privées yooyu kenn amu ci gain de cause. pour mmh. l'éliminer. Mmh. Mame Mambay Niang deux mois lañ euh, la amoon. Mmh. te Mame Mbaye mënul woon def appel ba ñu yokk peine bi. mais xoolal Moussa. waaw daguma la Bart dafa ne. Ousmane Sonko 2020 ba 2024 bu toogoon këram di julli kese kese kese kese kese kese ba élection yi jot. dañ koy toppee tu as trop prié. <laughs> loolu la loolu la ko. non mais c'est ça. maanaam mënut too woon a mucc. mënut a mucc waa di ndongo la boo ko saraxul mu jël ak dooleem. dégg nga xam nga moo tax nekkee fii di jéem a lay sëñ bi daanaka débat bi sa xam nga xam nga xam nga Mohamed Diallo. Mhm. Euh, booyee di làkk soose Casa Foninkeere Ndoore Pareta. Mhm. Ziguinchor Sonko Binala. Mhm. loolu boo ko defee discours bu viol boo ko defee woy bu violent. or maraud du feu. ça c'est violent quand même. ñoom euh, ndawi dañoo àndoon ci ñu doon wax góor gi dee na. suul nañ ko tey ñoom ñooy joxe ay leçons nee nañ. c'est-à-dire dañuy mel ni Euh, Sénégal légui la xew wala ñun on est amnésique gars yi gars yi 23 euh, juin 2011 dañu taal ay kër. dell na sul nañ ko mom ñom ñëpp la. daaw ñu ñëpp la woon ñoom ñëpp la woon. toute APR APR mi ngi ci woon. té ah, ñun 23 juin dañu tal ay kër jàmbur. 88. dañu tal ay kër jàmbur maître babu dañu talon këram feu moment dégen ci chimère talon taaloon seen kër. fan ba Senghor ñu taal yi oto ba joxe foofu yëpp. mais Tolo. alors donc. Farba Ngom euh, Farba quoi mais mais mais waa le dafa bind dafa 2011. le combat contre le régime ah, se fera dans la rue. Ah moo ko il appelle l'armée armée la wax. à la responsabilité ah, à côté du peuple. dans la rue le combat contre le régime du président Wade. c'est-à-dire nous euh, ñi ñu bëgg présenter comme des anges quoi moom moo ko bind tweet baa ngi fi ba léegi dans la rue la ko wax ne foofu lay xewee ak armée bi tey loolu ku ko wax tama du la ëpp yi bu ay ku ko waxoon buñ ko toppee woon appel à l'insurrection du bokk dafa ne quand l'essentiel est en jeu président Macky Sall moo ko wax ci benn tweet que s'opposer devient un devoir. 2011. Mmh. déloger président euh, Wade ce n'est pas un reproche que je lui fais ah dama ne rek loolu discours opposant la comme ni Ousmane Sonko def. Mmh.

kaddu yooyu nag muy kaddu yi diis yoo xamante ne boo koy wax sax sa xol dafay tàng loolu waa Benno Bokk Yàqal Sénégal yàq nañ yàqeet Sénégal waa APR moom Sénégal lu leen neex def fu ñu neex taxaw alal ju bari ñu yor ko waaye kenn mënu ci ñoom dara jamono ji nag seen mbébét lépp rek mooy fexe nu nu toogaate ci bopp nguuru Sénégal jiital Amadou Ba doon te sax neexul neexul Macky Sall ndax Macky Sall bu sañoon moo fi toogaat buggoon randal élection yi jaraloon na ko tey mu taxaw samp ndëndëm waaye samp ndëndëm boobu tax na Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ak askanu Sénégal population bi yëpp génn sës ko ci miir bi ba tey jii Macky Sall am lu ko metti lool. loolee nag tax na mu ne daal duma bokk waaye Ousmane Sonko moo tax nag lu ne mi koy def rek ngir faagaagal kii di Ousmane Sonko wala képp koo xam ne bokk nga ci parti bi di Pastef parti boobee nag désigné nañ kii di Ousmane Sonko mu doon seen candidat waaye Ousmane Sonko tamit joxañ Bassirou Diomaye Faye ngir ñu pare ne ko pour l'instant ndax Bassirou Diomaye Faye day dem wala déet wala keneen moo nekk ci ginnaaw wala déet lu ci am lu ci wala sax lu ci mën a am parti Pastef moom lijjantiwuñ lool ñoom seen mbébét mooy li Ousmane Sonko wax rek loole la ñuy def tax na nag parrainage yi nga xamante ne tàmbale woon na laata sax ñuy ne Bassirou Diomaye fay tey ji mbedd moo romb foo romb ci biir réew Sénégal ci région yëpp moo xam Touba Ziguinchor waaye sax mbake Bawal Diourbel Thiès fépp foo dem rek yaa ngay gis 111 numéro bu baax bi nga xamante ne Ousmane Sonko moo joxe ndigal képp ko nga xamante ne rek am nga yéene ci moom nga pare ne Bassirou Diomaye fay loolu nag tekkiwul ne Ousmane Sonko dafa bàyyi déedéet Ousmane sunk day topp topp li nga xamante ne moom la war a topp ba yoon lu mu ko may mu jël. li ci des nag ñu bàyyi kook sunu borom bi nga xamante ne gëmmul nelawut borom boobee nag moo sàmm président Ousmane sunk ba léegi seen pexe ak seen ndëgg yàgg na lool waaye taxul ñu am. dara dara dara la ñu bëggoon Macky Sall bu fekkoon am na doole bu fekkoon la mu bëggoon wala sax lañ ko doon digal def na ko wala am na ci ndam kon Ousmane Sonko kenn du waxati ay mbiram boobu ba tey ña ngay jéem ña ngay kas ay kàmbak di jéem a teg ndëgg sërëx bu ne waaye échec total lañ ci am ndax askan bi ci boppam ñoo ànd ak kii di président Ousmane Sonko.